الوزيرة سيف البزيرة دار من نام دون خديرة خليفة بانغ فوفا خلا نفيانغ على المسيرة بول ميديا اسان اذا خديرة ok jërëjëf RTS jërëjëf Serigne Modou Diop jàpp euh, mbokk yi aoudu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu noo ngi leen di di waat di leen ziarawaat baax a baax di ndokkeelaat ñëpp di ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaxa ah, sunu borom yàggal taxawaayam te wéral ko yéeneen ci liggéeyal Xaadimu Rasuul ah, Cheikh Ahmadou Bamba rek mu matale ko taan ko mboolem taalibe yi eh, jërëjëf sëñ Mor Diop Thiat jërëjëf mbokk yi bàyyi xel eh, Euh, Bawol Media FM 88 point 5 kàddu gi bawoo ci diwaanu Mbacke table caabi takaloo xalu mag wi euh, féetal jëm ci dëkk bu tedd ba di Touba Mbacke noo ngi leen di ndokkeel di leen di leen jaajëfal bu euh, di rek ànd ak yéen comme ni nga xam ne noonu la ñu ko baaxoo ci suba ba jigéen ñi ci bis bu tedd bi nga xam ne tey moom la ñuy fàttaliku gisee Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba ak maam Cheikh Anta Mbacke si Moxtar Euh, borom daaru salaam ak gaawaan ginnaaw bi nga xam ne ku tedd ki euh, xadim rasul euh, Cheikh Ahmadou Bamba sunu xemmemteeg sunu nammemteeg sunu yaakaar teeg ëllëg ci la moom ci tukki ba ba mu des waatee nag gise ak rakkam bi tedd ja maam Cheikh Anta Mbacke bin Mokhtar borom daaru salaam gaawaan xew-xew bu mag boobu nag ngan googu tey moom la ñuy màggal ci barab bu tedd bi nga xam ni moom di daaru salaam daaru salaam tey sëñ Modou dalal mbooloo mu takkoo takkoo takku moo xam ne mu ne su ko natt ci euh, taxawaay euh, barakallahu li nga xam itam euh, moom moo di suñu bokki takk der yi gis nañu seen taxawaay bu yaatu lool ci mbooleem télévision yi dox yi ci biir Daaru Salaam moo xam antenne jaar ci jumaay sëñ Cheikh Salaam moo xam entrée bi nga xam ne moom moo jógee Mbacke jaar gaawaan dugg ci biir waaye mbooleem gox yi nga xam ne ñoom ñoo jógee ci benn yi nga xam Euh, fa la ay mbokki taalibe yi jëm si ci dëkk bu tedd bi nga xam mooy Daaru Salaam tepp gis nañ ni mbokki taalibe yi ñu ngi def benn tappe euh, rek lan moo waral euh, jotaay bi tey mooy sàkku ci aw yiw sàkku ci aw jiab ci bis bu tedd bi nga xam ne mooy bisu maam Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam ak Gawane xam ngeen ne bi ñu ubbee jumaa ji ak léegi yàggul ñu bari fan jàppoon nañ ni dana xawalaal màggal gi waaye dafa mel ni dafa gën a fees mbooloo mi dafa bi nga xam ni sax daaw ñu njëkk a jiital li nga xam ne moom moo di ubbi te juma kon dafay mel ni mbirum Serigne Touba li ngi noonu tànki kanam la yam waaye am aw da mboolem wax yi euh, taalibe di ñëw euh, bis yi di dugg si dëkk bu tedd bi nga xam ne moom moo di Daaru Salaam penc mi fees dell macha allah waaye itam li nga xam ne si la Serigne Abo Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa euh, sëñ Mouhamadoul Mamoun Mbacke Cheikh Anta moom itam gis nañu mbokku taalibe yu takkoo takku ñu ngi fi di màggal bis bi naka itam Cheikh Anta Mbacke mu Serigne Modou Rokhaya Mbacke mi nga xam ni moo di porte parole jablootu maam Cheikh Anta Mbacke mbokk yi Serigne baa ngi fii mbokk taalibe yi ñëw euh, di saafonte ak moom ci bis bi nga xam ci tey moom di bisu maam ju tedd ja di maam Cheikh Anta Mbacke naka noonu itam mbokk euh, maam Cheikh Anta yi ñu bokkal Cheikh Khadim radiyallahu anhu waaye ñi nga xam ne itam cheikh yi nga xam ni euh, dañuy jaayante woon ak ku tedd ki xaadimu rasul euh, cheikh ahmadou bamba fekkente woon euh, ci kër ku tedd ci bi maam cheikh anta badi sëriñ touba njabootam itam mën naa wax ci ako maam cheikh anta doon jëflante ak njaboot ji noonu lañu ko jëflante bu baax a baax ak maam cheikh anta nag waa ko sëriñ omar diop mbàcke ñoom gis nañu tam seen taxawaay macha allah ñoom itam ñëw nañu euh, ziar si naka noonu tam waa Darou Mouhty kër Cheikh Ibrahim borom Darou Mouhty ndax kenn ku ne xam na euh, diggante maam Thierno Ibrahima Mbacke ak maam Cheikh Anta Mbacke si biir Mokhtar nekkoon na diggante bu rafet diggante bu yaatu woon waaye diggante. bokk xam ni daa nañ ko jëflante seen biir loolu itam euh, benn saam euh, ñi xam ne ñoom ñoo di njabootu Cheikh Ibrahim borom Daarul Muxti def nañ délégation ñëw waa kër Serigne Mandoumbe Mbacke ñoom itam ñëw nañu waa kër Serigne Issa Diène borom Diène Lëgën waa kër Maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridina ñoom itam gis nañu leen ñu ngi ñëw di am seen waaye di amal euh, seen i nemmeeku ci mboolem njabootu maam Cheikh Anta Mbacke ci dëkk bu tedd bi nga xam ne moom moo di euh, Daaru Salaam dëkk bi maam Cheikh Anta Mbacke dinaa alam ni sant ko koy rafatale waaye ak euh, téeméeri yu manqué benn daal koy jox ci tedd gi daal dem ci Touba fii may wax ak yéen euh, dëkk bi macha tàng na waaye xar kanam mu mbokku taalibe yi ko ci gis ku nekk sëñ Moodu da ngay daal di nemmeeku ni mbégte moo fees ci moom amul benn coono boo xam ne feeñ seen kanam waaye li muy tàng tàng nit ñaa ngi def ay ron jëm ci euh, barabu maam Cheikh Anta Mbacke waaye nit ñaa ngi def ay ron jëm ci njabootu maam Cheikh Anta Mbacke gi sax yëpp ci bis bu bi ndax bis bi woon boo xam ni ki ko doon amal mooy maam Cheikh Anta ak ko doon amal di magam ji Cheikh Khadim ñoom ñëpp ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala la ñu am tabarakallahu moo tax ñëpp tey di jóge ci gox yi fasantikoo ci àdduna bi ci réew mi ak bitim réew daal di dëgmal yi ñi nga xam ne moo di Daaru Salaam ngir fàttaliku seen ñaari gise yu tedd yooyu nga xam ni tey euh, nekkul na gise goo xam ni daf ko laaj borom bi subhaanahu wa taala mu ne ko wàccaay bi day mooy daaru salaam kon nekkul loo xam ne sëriñ bi euh, moom moo ko sàkkuloon bopp sax sëriñ bi bokk yi bari woon nañu lool waaye dafa laaj suñu borom subhaanahu wa taala mu daal di koy wax ni waay bi de moom mooy daaru salaam ndax daaru salaam barab boo xam ni Euh, barab bu yiw la barab bu xéewal la barab la boo xam ne sëriñ bi jógee Mbàkke ci la ñëw sànc ko euh, mu nekkoon barab bu xam ne jàngal ñi nga xam ñoo ko toppoon daal leen yar daal leen tarbiya daal leen teg ci siraatal mustaqiima euh, ba liggéey ba nga xam ne moom la suñu borom subhaanahu wa taala dogal mu mat ko fekk yàlla sànc ba nekk ba ni nga xam ne noonu la ñu ko jurdal ak li ci aju lépp ba ni jëmmam ji sell ji moom Cheikh Xadim radiyallahu anhu suñu kon daal tey mën naa la wax nii euh, mboolem cheikh yi jaayante wala maam Cheikh Anta ñoom itam boo demee seenu njaboot ñu ngi màggal ci njaboot sëriñ Mour Jaay Diop ñoom itam ñu ngi ci njabootu euh, sëñ village Ibrahima Dia cheikh si lañu ngi ci dafa mel itam njaboot nga xam ni sax euh, moom la ñu tëroon ci jamono yooyu nga xam ni xërum maam Cheikh Anta ak tuuti ñu bëgg Cheikh Xadim woon ci moom nga xam ni loolu ba ci am xam radiyallahu anhu ci ñëwoon jëmm ak njabootam ñi ngi màggal bis bi loolu lépp di wane rek euh, pas-pas bi nga xam ni yàgg naa am ci yoonu murit pas-pas bi nga xam ni yàgg naa am ci lislaam loolu deful benn saa kon fi mu toll nii euh, jotaay bi ma allah tàng na waaye taalibe yi moom euh, ñu tàngoor yi mbégte rek moo tax xarkar mu taalibe yi di li def ay ron ci jàng alxuraan di weer wi teraw ba nëgë nii waaye bis bi nag tey daf koo gën a yi waaye tam jàng xasida mi nga xam ne Sëriñ Tuubaa wax na ni euh, mooy kiraamam bindum loxom mi loolu tam ñu ko gën xam ne lim bu takkoo takkoo takku la ndax ni mu xam ni dañu ko tànt di ko jàng yi kariim soo amee <coughs> yeneen bâche yoo xam ni nu ko tànt bi ci jàng li nga xam ni moom moo di euh, xasida loolu nag euh, kon lu am solo la kon sëñ Mourou xam naa daal euh, ci kanam tuuti incha allah danañu gën a yaatalaat ndax euh, am na waxtaan yi nga xam ne euh, bu ker gi seddee incha allah dana am ci barab yi nga xam ni mooy Daaru Salaam xam nga Maxtaar moom sëñ Dakar Souma mi ngi waajal benn waxtaan ci kanam tuuti incha allah di seet en diggante yooyu noonu. waaye naka noonu tam xam naa bu amaatee yeneen jotaay yoo xam dina am ci biir dëkk bi lépp waxtaanee ci ndug maam Cheikh yi ak magam Cheikh Khadim radiyallahu anhu seen rajo euh, Bawal Média FM quatre-vingt-dix point cinq naaj bi ci Mbàkke Tabla Dia jàkkaarloo xàllu mag bi dëgg ma dëgg bu tedd ba di Tuubaa ci ànd ak yéen waaye gërëm nag euh, yi nga xam ne tey ñu ngi ànd nag ñun ci liggéey bi foofu ci euh, barab bi di jaajëfal bu baax Serigne Mor Ngom ñu koy jaar bu baax oustaz ak sëñ maam góor maam doon liggéey ba xam ne macha allah techniciens yi ñoom sëñ Fallou ak ñoom sëñ Abdoul Ahad Lo ñoom sëriñ Moustapha euh, Thiam euh, Mawla War Xafal ak mboolem répartiteur yi nga xam ne jamono ji ñu ngi euh, Baol Médias daal ñu ngi envoyé ñu teew ci dëkk bu tedd bi nga xam ni moom moo di Daaru Salaam boobu ba léegi yéen a ngi leen dégg seen taxawaayu rafet sëñ Maam Góor macha allah ci liggéey rafet bi ak ñi nga xam ne dégg yëpp macha allah nga xam ne su fekkee gaawaan ak Daaru liggéey bi macha allah rafet na kon noonu la ko Baol Médias FM fas yéene ànd ak yéen dund koog yéen Ibrahima Khalil Diop moom itam macha allah ci liggéey bi euh, booleeg rajo bi caméra bi lépp macha allah ak mboolem reporter yi nga xam daal euh, jotuñu leen a ñun waaye wax dëgg yàlla bu ñu ko kon ñu ngi dégg vraiment di leen kenn wallewu ko moo xam jakarta yi moo xam sareet yi moo xam bàtt yi moo xam oto yi kenn wallewul bis bu tedd bi nga xam tey kon suuru saga incha allah daañu ci àndaat ak seen mbokk si xarit Pape Alassane Mbow euh, fii ci euh, Daaru Salaam dëkku maam Cheikh Anta Mbacke ci biir Mokhtar gërëm sant jaajëfal ak Serigne Modou Diop jaar PDC bu rajo Bawol Média FM ci euh, taxawaay yu am solo yi nga xam ne jëng ko ngir mbokk taalibe yi mën a dund li nga xam ne tey moom moo di nganu maam Chante gi mu ganale Cheikh Khadim tey koy fàttaliku tey ci biir réew mi ak bitim réew fu mën a nekk man fa ànd ak ñun ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci déglu bi teewlu gi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi ko yoo roy ci Serigne Touba adduna bi léegi dara jafetu mu lu gabon fa géej gaa ngi umaa tey jireewu jireewu walla ay ko sakkamu kenn Bamba tey jireewu danga dem nga boog fa géej a réew ma mbokk taalibe yi jug leen ca kaw sargal Serigne Saliou jar na ko jug leen taxaw ca kaw màgg Serigne Saliou ku ko def yàlla nga tàggat tànk yu métti ay ko sakkanum kenn bamba tey ci réew danga